ñi naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de si kaasu kafe nga guux bala ngay naan mbay si mu ma wax la li xew ci réew mi askan sunu gaal gi borom kër gi kilifa gi li mu dafa yéeme te doy waar ay waay jërëjëf ma ngi ko defe ca cité apex yëgle kaay gi ne moom ab expert comptable la yëgle gi ne ay mboole seen ay doomam yëpp la boole ndoo dugal ci ab néeg tëj ba mu dëgër daal di moom ci jëmi boppam dugal doom yëpp ci di boulangerie yi ni dañuy gréew le 15 janvier gi jëm lànk ni du dellu ginnaaw li leen yitteel mooy règlement du secteur de la boulangerie yëgle kaay gi ni ma moo ci réew mi askan sunu gaal gi kaañ dem seet l'observateur marché bi ci jëmi boppam tension la am de ceeb bu fa manqué jaaxal askan sunu gaal rawatina borom kër yi borom kër yi kay fi ne nii li leen jaaxal mooy ceeb bi nga xamante ab siam la daal yokk ba àgg ci lool gaz rino parfumé daal ak gaz moom fi ne nii moo jaaxal borom kër yi ña doon wër ci kër ya ca Kédougou di ubbi buntu jàmbur yeek sàcc ka def yu nu mel yëgle kaay gi ne ko ma ne ngooy nanu ko kay cum la ma takk der yi libération yëgle wax la nag yokku cere doon lu ñeex maa la wax lii esege soor waaw yëgle kaay gi nee ma inauguré nañ fa benn unité ay eh waay gendarmerie nationale si jëmi boppam ma ngay renforcer ab présence am ca sud ba yokku dooleem kay ca ci ki coor libération yëgle kaay ne ma li ñëpp doon Ziguinchor Matam Saint-Louis Gossas ba Pirum Dëri mooy contrôle parrainage yi ndax jeex na am déet ma fin du premier tour am na sax yuñ ci contrôlé démb des dossiers yi ñu contrôlé bu Ousmane Sonko ko waaye kaay ne ma dossier ba lan ca wax moo di daa incomplète matul laa la wax ay avocat ne dañuy dugal recours Les Échos yëgle kaay ne ma lu ci am ba des daal Ousmane Sonko moom définitivement récalé ma ne ko nga ni mu ne ma maa wax lii ab dossier des ensuite ku def lu ni mel mu ni ma le conseil constitutionnel le soleil yëgle kaay ni ma neuf ñoo passé ci li nga xamante moo di contrôle premier tour yi waaw Sonko des ko éliminé direct lu yëgle kaay ni ma kaay nag mambay ñaam yi am na ciw jaabalaala de moom mi nga xamante fi ne nii fexe na ba seetal boppam éliminé Sonko ci élection yi le quotidien yëgle kaay ni ma Ousmane Sonko invalidé ma ko ñan ñoo ko invalidé mu ni ma le conseil constitutionnel ci réew mi askan sunu gaal gi de moo ko yóbbee bés bi la jour yëgle kaay ma moom kay plan de sursis lekk fi ñu tembe ca la nekk ndax ab candidature moom validé wunu ko ay awakaam nag nee ñu dañu dugal recours moom Ousmane Sonko waaye kaay ma am na ñu mu dese de Habib Sy waa Cheikh Tidiane Dièye ak Diomaye Faye ñoom dong la desi ngir mën a sauver projet moo démb ñi nga xamante ne ñoom la ñu contrôlé mujjee Sud Quotidien yëgle kaay ne ma contrôle a amul de zéro admis d'office ci fukk ak ñeenti candidat yi nga xamante ne ñoo jàll ñu contrôler leen ci parrainage yi xoolal ma Talla Sylla moom daa jekki-jekki daw nee day retiré aw dossier ni nan ma delloo sa aw dossier waa Talla Sylla moom lu tax mu retiré dossier bi lee doy na waar ab laaj rek nañ dem ci naka noonu Ousmane Sonko moom des koo rëkkale maa la wax lii yëglekaay gi ne ay dem mbooj du xam nga ko invalidé bugaan ngay dani Thierno Alassane Sall Amadou Ly ñoom ci seen jëmi bopp doublon yaa leen di xaw a rey ñun leen ay ca jàll leen deuxième tour dox leen defaru ji waat yokk yokku cere dool lim ñeex 24 heures yëgle kaay ni ma bala nga cee xuus kaa ñu dem ca Maroc wëpp lëw ca Dakhla fanweeri doomi aadama yoo xamante ne ay sénégalais la ñu faatu chetëtëtëtët migration yi lée irrégulière waaw ca la jaar de maa la wax lii faatu nan nii ca Maroc moom kay trentaine décès la ñu fa enregistré foofa ca Dakhla tribune yëgle kaay ko xam le tribune yëgle njiit lay bugaan géy dani yëgle gi ne moom njiital des médias njiital gëm sa bopp cinq parrains avec vingt neuf mille six cent vingt deux doublons enregistrés war a dem li jënti ñi nag lu tolloog dix neuf mille parrains ak région boo xamante ni moom la war a complété moo jigéen ñi nag fi ne nii daal Anta Babacar Ngom dong fi taxawagul set ci wecc ci mbir mi laa wax ay dem boo du xam ngeen ko ak sa Sow Sidibé ñoom ñëpp bokkatuñ ci course bi tribune ma bul dem lu ci am ba des daal mooy kaay ma wax la dossier Ousmane Sonko moom des ko refusé jomaay ko ubbi ba noppi exploité ko te ab mandataire am teewul ci absence am lees defe mbir mu nu mel grand pénal yëgle kaay ni ma li ma la mën a xamal daal mooy Sonko du bokk l'évidence yëgle kaay ni ma ci téeméeri candidat yi juróom-ñeent doo nga ci jàll d'office libération yëgle kaay jox kàddu ga El Malick Ndiaye mu naan parrainage Diomaye yii 90 pour ci clé bi ci jamono ji nga xamante ñu ngi koy déposé léegi ko yëgle kaay ni ma moom kay neuf at mi nañ d'office moom mooy kàddu gaynde yi ñoom ñu war a Niger yëglekaay bi di record ni ma suñu dajeeg Niger gii dajeeb rassurance tëgg lay doon stade yëglekaay samp di laaj naa waa avantage la wala avantage ci gaynde yi gaañ daal nee ñu ay at du leen jaaxal Cheikhou Kouyaté moom gëm na ni mën nañoo jëliwaat coupe bi andi ñu waxaat andiwaat lamb yi diggante ki nga xamante moo di Modou xarañ loog Boy Niang 2 Boy Niang 2 di yëkkati ay kàddu te sunu lamb erreur yi nga xamante la def ba daanu ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàggin jëf jërë jëf euh, jàggin xarit yi dëkkandoo yi fépp fu a nekk ci biir fa leen jàpp a leen encore une di bég ci képp koo xamante ni yaa ngi nuy bàyyi xel mbokk yi euh, gis ngeen li nga xamante ni moom la ñu tàmbalee di kawteef bi waa ji nga xamante ni daa dajale ay doomam yépp ci ab néeg ba pare daal di tàkk buum ci baatam sa ndaamtal boppam daal di faatu weet tet tet tet tet gi xaru mitti na te doy waar waa moom lu ko dugal ci lii doy na waar de lii nag moom war nañ cee defi tegtal ak i jàmm bàjjen xujja lii faaw nga wax ci ak sëñ Abdou Salam Sarr ndax mbir mi daa nekk mbir mu yéeme te doy waar ah waaye yéen nag kii lu ko war a naqari nag ah waaw ah, baax na nit dina dox di dem nag di dund loo xamante ni aw naqaru naqaru koj korooj lay doon naqar wu métti wu saf woo xam ni amaam du ko mën a expliquer ay mbokkam wala soit ay mbokkam dañ koy xam dëgg bal bi bàyyi ko ci biir deen mi ngi am jàmm fekk na moom xol baa ngay roñaw day dem ba benn instant nag bu ko muñee ba muñ ba munatu koo muñ ba muñ ba munatu koo muñ ba muñ ba muñ rek def naka sudul noonu ah waaye ana gëm yàlla ah nit ki pour man jàpp naa ne wuroo mën a dund fii ci réew ma askanu sunu gaal ci daaru dund yaa gii loo xamante ni war na laa mittee mittee mittee mitti mitti mitti ba àgg ci lool lool lool ba àgg ci takk sa buum ci baat nee dangay ngay sa ndaamtal sa bopp ah lii mitti na de ah dama ni xaaral ma xelli kafa gi maa ko diggee maa ne ku commentaire ku ne ma tudd saw tur te gaa ñi commentaire noonu macha allah macha allah kontaan naa si yéen sàppalaa lool la sama waa ji di wax naa macha allah sàppalaa macha allah yéen ñi ma ñëpp ah moo xam ci biir réew ak bitim réew kontaan naa ci yéen de Issa ca commentaire El Ba également Papa Faye Euh, Laat Diop euh, ana Laat bool ca fi nga xamante ni moom moo di Ceskaay benn dëkk ñaari gaar ca marché central ba Laat bool maa ngi laa nuyu maa ngi laa bigee di la jox sa wàcc waaye di la kontaane bu baax a baax El Hadj Sakho Tempulo mi ngi nii sama xarit la euh, commenté na borom Argentine maa ngi di ko jox wàcc waayam bu baax a baax a baax a baax a baax ayca di bigee bu baax a baax sama waa ji moom nee na ma macha allah sama doomu baay Cheikh Omar Diop itam maa ngi kaa nuyu Umar Diallo itam Keba Dia Abdou Kan maa ngi kaa bu baax a baax Mia Diouf dam Kounta mais Michel Tine ah cum waaw waaw Michel seltin ba nga bu fekkee de da ngaa bëgg ci café gi da ngay def 78 453 48 86 nga am ci café gi jot faal dammel Cheikh Wade maa ngi kaa nii Fatoumata Bintu Diallo bintu maa ngi koy bëgg bu baax a baax Lamine Ndiaye Absa Gueye ah, Binta Sarr itam maa ngi koy nuyu bu baax a baax Serigne Ousmane Ndiaye Yacine ah sama waa oh lu ne la ci man maa ngi kaa nuyu bu baax a baax Baye Modou Yadda ngi noonu Dame Kunta ngi noonu ah Modou Modou Serigne Modou Serigne Modou Dieng. cey maa ngi koy biggee Mansour Ba maa ngi kaa nuyu di ko jox wàcc waaye moom itam di kaa biggee di ko kontaane bu baax a baax a baax maam jaara géej itam maa ngi koy biggee am na démb tamit ku ma woo message ma ni ma fal dammel man la euh, saw xarit doomu ndey cey xam nga xam nga nit ñi moom doo am seen fay daanaka nit ñi daal ma nga ma ma nga ma message ca Argentine ma nga tudd ma xuj a fay borom Argentine maa ngi kaa nuyu di nuy sama ñoom yaay liika sama ñoom yaay malado ah sama yaay xuj borom États-Unis amérique ñoom ah ñoom xaadim ah, borom États-Unis d'Amérique ñëpp rek bëgg naa ñëpp damay bañ a lim ku lim joom danga dul matal pirum ndëri ba Gosaas maa ngi leen di nuyu maatam Saint-Louis ba ci ki coor Tambacounda Kaolack ndangaan fépp waay nekk di ma teewlu ca Italie ca ca Brésil ca waay waa waa Mali Bamako kii dañ may teewlu waa Maroc kenn du ñoom Mauritanie sax ñi ngi may teewlu nag ah waa Guinée équatoriale euh, Côte d'Ivoire ñoom fan may teewloo fépp daal ci réew mi Brésil ah Suisse Argentine wax naa ko léegi moom daal mi ngoog Italie bi naa ñëpp jox ñëpp seen wàcc waaye gaa ñi bindal leen ma seen turu dëkk yi ci commentaire yi seen mbokk seen xarit Fall Damel jox leen dig daje mbokk yi jërë ngeen jëf.